télévision yi que dama bàyyi làmb ji non non non dama nekk ci rajo boo xam ni euh, dañuy liggéey bu baax ci sport bi te il faut que ma ñëw présent parce que tamit xale yi fa nekk maa leen fi jëkk maa leen fi jiit il faut que ma ñëw di leen diriger il faut que ma ñëw tamit euh, di waxtaan kam ak ñoom ci wàllu programme bi ñuy liggéey il faut que may nekk en permanence à côté de loolu moo tax mais ba léegi maa ngi ci làmb ji ah ne damay seetaan làmb damay suivre làmb mais nag comme ni ngeen ma daan gisee ci plateau yi ma koy def au niveau de la télévision di ko def 2S euh, daan ko def TFM li tax ma bàyyi ko surtout mooy heure yi ñuy def programme mu làmb yi parce que làmb yi mbër yi dañ leen di convoqué à 9h 11h la ñuy ñëw wala 11h30 wala minuit bu ñu ñëwee d' abord seen préparation mystique rek dina def lu mat une heure de temps muy une heure du matin ou deux heures du matin waxtaan bi mi ngi commencé peut-être. ay deux heures du matin jëm trois heures du matin quatre heures du matin te condition yooyu guddee bi moo tax du ma mën a liggéey ci euh, maanaam télévision yi bu fekkoon dañuy respecté heure ni au plus tard à vingt heures trente wala a vingt deux heures programme yi dina commencé kon peut-être dinaa mën a liggéey mais munuma di toog foofu ba ay onze heures minuit émission yi di commencé minuit di jëm une heure deux heures du matin may liggéey loolu rek en fait moo tax su fekkoon heure yi gëj nañ ko avancé mu nekk vingt wala vingt heures wala vingt une heures kon toujours dina ñëw mais comme li ma la expliqué programme boo xam ne dañuy convoqué à 9h mbër yi ñëw à 11h programme bi commencé à minuit une heure jëm 2h 3h du matin loolu moo tax mënatuma liggéey ci loolu. waaye Pape Dieng saa bu analysé ci làmb euh, au début nit ñi mën nañoo bañ nangu mais au fon loolu la mu waxoon am atu seen kaw maanaam day am dëgg seen kaw booy analyser lu lay déy la wala da ngay wax rek li nga xam moom nga sentir ci mbir yi. non non may gis ak li may sentir ak expérience ci am dama yàgg seetaan lamb. yëkkatee film nga aj yàgg seetaan lamb mais seetaan lamb boobu ay quatorze ans quinze ans laa am xam donc dama ci am expérience euh, dama dem ba tay gis ci loo xam ne dama li ma ci yaakaar ñàkk ko cee gis lu ma ci doon séntu bañ a am. ma xam ne kon làmb beneen affaire la mën nga jekk ñëw ba ci làmb ji li ñu li ñu yaakaaroon ci yow ak yow li nga yaakaaroon sa bopp sax lépp wëlbatiku ba finalement li nga doon yaakaar doo ko am donc làmb moo tax ku ciy dem rek na nga am prudence surtout mbër yi yaa mën waa ji yaa ko mën bu mu tax mukk nga defe ni bëre bi day yomb bëre bi même pour nga am ci ndam il faut nga jaar ci yoon làmb dafa nekk yoon woo xam ne boo fa jaarul doo egg fa nga jëm. d'accord fa laay euh, jëm dimanche Ada Fass làmb mënatu laa jaaxal tey Ada Fass fubu bi mu yor ak traite xale bi mu yor tey kenn ku ne jàpp ni moom moo mën moo doole mooy xale tey nan nga jàngatee ñaari taxawaayu ñaari mbër yooyu tey ci sos expérience boo xam ne jumloo na ku ne këf na fi boo ñaa daan ko daan fi guy gi waaw du bëri xam nga tamit expérience am na ci solo mais doole it am na ci importance moo ko lal donc ñoom ñaar ki ci doole rek mooy daal Zoss nga wax dëgg la gis nañ bëri bi mu bëri ak guy gi ak na ak na mu ko daane gis daan booy ñaan na ko daane waaye làmb da daan nit mu raw la xoolal booy ñaan fi mu yegg tey xam nga Zoss fa muy bëri xale boo xam ne nag bi mu ñëwee ci làmb ji dañu gis ci moom ay qualité yu bari yoo xam ne dafa am yu bari yu mu noroog mbay gi waaye ci diggante bi daf ci fo ba daanu ci ci digganteem ak Zarko parce que mën nga daanu sax mais boo daa mais da bëree ba daanu sax ñu xam mu jóge fa tamit di bëri encore koo xam ni euh, ku am expérience ci làmb la ak ko am caay-caay ci làmb bu sos donc àddina def attention ce n'est pas parce que moo gën nekk xale que mu moo ëpp doole moo suut que làmb ji dafay yomb ci moom même bu yomb ci moom na ko jaarale ci yoon parce que li ma la wax la làmb tali la boo xam ni euh, da ngay dem bu fekkee jaaroo ci yoon bi lay yóbbu ci fa nga jëm soo ma moytul boo jàddee da ngay daanu donc na ko respecté bu baax a baax jox ko cër ñoo bëreeg moom nu ñuy bëree ak mag sa mag dafa am nu ñuy bëree ak moom dafa am nu ñuy bëree ak koo xam ne sa morom la am koo xam ne yaa ko mag ak koo xam ne moo la mag donc Ada Fass na xam na ràññee ñett yooyu ba xam ne mu war a bëree sos pour mun ci am dara ndax bu ko defoon mun na ci am lu ko naqari. d'accord mais Reug Reug Bombardier muy combat bu naqaree parce que Reug Reug euh, dafa am ay erreur mu def Sa Thiès yoo xam yi mu def sax euh, warul bett kenn ndax xam nga Reug Reug mën na bëre lool mais xeex bi mokkul te bëre dóor su fekkee danga koy def loo mën bëre simple boo dajee xeexkat da ngay am problème surtout bagarreur tax ma Sa Thiès bagarreur la Reug Reug li mu war a def mooy jàngi xeex bés bu mokkalee xeex du neex daan ndax mën na bëre waaye nag bëre dóor la ñu wax. c'est-à-dire mën a xeex mën a bëre kero bi muy ñëwee di bëre ak Sa Thiès loolu la manqué woon bagaar cest à liggéeyul ci bagaar bi ba mu mokk ndax bu mokkoon keroog dina mën a xeex ak moom mën a bëre ak moom te te Sa Thiès bagaareur la te te te te et puis dafa am euh, dafa am lu mu am loo xam ni am na sax nu ko tubaab tuddee dafa am dafa am explosivité c'est-à-dire day mel ni ku explosé buy ñëw sa kaw voilà te loolu koo mënti doon bu ñëwee même boo dawul di nga reculer te loolu moo daal kay ko a tenir peut être saa ci bu njëkk su mais bëri bi waaw mais bëri bi tamit neexul a tenir ndax poids plus de cent kilos ak taayam ñëw ak xeexam sa kaw boo dawul di nga dellu gi ginnaaw. pour mën ko intercepter mais loolu dafa baax ci moom parce que tamit defet boobu daf koy jàngal at euh, làmb ba bu ëllëgee buy bëree ak bagarreur moo xam ni mu waree bëgg parce que bagarreur dafa am nay bëree ak moom bagarreur dafa am nay bëree ak moom bagarreur booy bëree moom da ngay moytu kuwam da ngay fexe ba kuyi bu mu la dal ndax kuyi bu la ci dal rek mën a yàq sa làmb gis nga bëri Modou loo ak Eumeu Sène am na ku boo xam ne bu la dalee day yàq sa làmb koy éviter te loolu da am da xool sa bët lay xippi xool coup bi mu lay préparé fu mu jëm ak ak ak bu la dalee lan la la war a def moom mooy tudd. Bombardier nan la mën a bëree pour ni moom ni mu daan bëree rek lay bëree du changé mënul bëree ba excès ba di changé lan lay changé. moom est-ce que wóor na. mais pourquoi pas. non de waaw liggéey la bu ñu la liggéey. làmb liggéey la boo xëyee liggéey ngay wër te liggéey boo xam dañ la ciy fay bu fay bu pay nga baaxee da ngay bëri. liggéey la mais nga tam tey bu fekkee su ko yoon daa na foofu booy Bombardier dafa nekk deux fois roi des arènes passé na ko daan daan ak bañ a daan ak daanu la yemale day ñëw rek bëri li ko war passé na ko na daal yi ba taay lan nga bëggati daan na ñëpp ah kan ku daan ñëpp kay bu ñu la daanee waroo mer. leneen li mooy euh, Modou Lo combat bu naqari. waaw kenn ku nekk jàpp ni kii man. kenn ku nekk jàpp ni kii moom moom combat bi tey mës est-ce que combat bi mu ne ci carrière làmb am na ci coow boo xam ne mënaguloo def face à face saa bu ñu ko jàppee bu yàqu coow li bari mës na am ci carrière làmb. non yàgg na am ci carrière làmb. c'est que c'est que bëre bi dafa doon bëre euh, bëre bu boo xam ne dafa doy waar trop. d'abord rek gis nga bi ko programmé 2019 ba 2023 te mënaguñ koo bëre ba léegi xam ne bëre bu dëgër bopp la mu ne bëre bu doy waar tamit bëre boo xam ne dafa doy waar ndax li tax mu doy waar mooy xale bi nga xam ne dafay Ama Baldé ku taxaw ci kanamam dafa defe ni moo la man te bu arbitre bi sifflé dafay ñëw sa kaw te Modou Lô dafa nekk mbër boo xam ne li ko arrangé mooy mooy kuy attaqué booy attaqué toujours day xaar mun na xeex mun na bëre te bëri naa ku ne te bés du ko jaaxal donc lamb bu doy waar la lamb yoo xam ne tamit ki ki ci ëpp condition physique ak euh, ki ci ëpp endurance ak ki ci ëpp vigilance moo war a daan ndax mën na gaaw mën na yéex te lu nekk xaj na ci kaw xaj na ci tout est possible ndax ama li mu wax ne noonu lay bëree bu ñëwee bu fekkee dafay bëri noonu bëree ba du yàgg ndax Modou loo daf koy xaar ci loolu te Modou loo nag dafa bëri ku ne. bëre ku ne ba pare wane li mu mën ci làmb ci ñu dàq bëri ci làmb yi ci la bokk te combat jaaxalu ko ndax bëri naa ku nekk amaa nag li tax mu doy waar mooy dafa am gëm-gëm ak pas-pas te gëm-gëm saa yoo ko amee en général boo demee di wuti di nga am chance su am mën nga ñàkk sax mais da ngay am chance su am mais nag nga xam tamit le roi des arènes lay bëreel Modou Lo c'est un professeur de lutte ndax li mu wane ci biir carrière ak carrière bu riche bi mu am ak fi mu toll ci làmb ji à son âge ak façon bi muy bëree ak ñi mu bëreel ak ndem yi mu am kuy bëree moom war nga ko jox rek. mais seen seen arbitre siffle rek Modou Lo Ama mu daal expliqué bu ñu jàppante doo am bu ñu jàppante il faut ñu dóorante te biir dóorante koro ngi lu nekk ñi dama laaj Modou Lo Gambie mu ne ma la ma la waxoon waxaat arbitre sax bu yéexee sifflé ma paqueté ko moog arbitre bi. non je te dis. du ma bàyyi ci dara. non non xam nga amaa nee na bi bu ñu tëlee mu dal ci kaw Modou Lo Modou Lo loolu xam na loolu ba loolu lay entraîné dèjà bu amaa ñëwee ci kawam xam na naka lay bëree ak moom li ma jaaxal nag ci biir bëre bi mooy amaa na gaaw ci muy def ndax bu yéexee c'est pas bon Modou tamit na xam ne xale bi muy bëreel dafa am pas-pas ak gëm-gëm. na ko jox cër même su fekkee dafa defe ne moo ko expérience na ko jox cër parce que gis ama bëre bi mu bëre ak Tapha Tine ku gis bëre bi mu bëre ak Malick Niang nga xam ne il est capable dans un grand jour de faire des révélations moo tax ma la bëre bu compliqué Tapha Tine Eumeu Sène kenn ku ne jàpp ne Eumeu Sène bu ñëwee Tapha Tine da koy duma da dafa am avantage parce que 1 mètre 94 pour 140 kilos c'est un avantage parce que bëre mooy ku ci am taille ëpp ci daan. ëmb nag dafa mën poids lourd ndax gis nga ne mu bëreeg Bombardier gis nga ne mu bëreeg Gris Bordeaux gis nga ne Balla Gaye donc taay war ko jaaxal moo tax man la booy combat yi may laaj ay combat yu compliqué la